Abdoulaye dal leen ak jàmm yéen kaay yu bari xëyandoo tey fësal njëgu kilogaraamu gerte gi nguur gi jot na ko xayma ci atum rën ji ci njëg mu toll ci 305 francs kilo bi di juróom benn fukki dërëm bu teg benn dërëm ci biir yéen a kaay bi di Walf Quotidien kii di Sidi Ba mi jiite CCPA di kuréel gu boot ay béykat xam le ne mbetteel lañu am ci njëgu kilogaramu gerte gi ci atum rën ji ndax ñu ngi doon séntu njëg mu toll ci 500 francs maanaam téeméeri dërëm Sidi Ba daal di fàttali ne nguur gi ak la mu bëgg a jëndee kilo gi néew na lool wuute lool ak fu ko doon séntoo ci njëg mu jàppandi gannaaw jafe béykat yi jot dund ci nawetu ren ji te lii di mbéyum gerte gi taxu ko demee noonu ba ne waroon na mun a tax nguur gi yokk njëgu kilogaraamu gerte gi ba béykat yi mun cee gis seen bopp bañ ko tënk ci 305 francs yéena kaabidi vox populi ne mangoog traite gerte gi juróomi fan ci weeru décembre gi ñu jëm lay tàmbale waaye nguur gi jot naa diisoo démb ba jot a tënk ci kilogaramu gerte gi ne dañ ko jëndee ci atum ren ji lu toll ci 305 francs maanaam juróom benn fukk bu teg benn dërëm li ci nguur gi jot a yokku ren toll ci juróomi dërëm ci vox populi premier ministre Ousmane Sonko xamle ne ndajëb démb jot nañ cee jël lu toll ci ñaar fukki dogal ak ñett mi fas yéene gunge bi le campagne te traite bi nar a tàmbale juróomi fan ci weeru décembre gi ñu jéem ay kàddoom ci biir yéene kaabidi vox populi Sidi Ba njiital CCPA xamle na tey ñu ngi doon xaar nguur gi mu yóbbu prix bi ci 500 francs wala boog 350 ba 400 francs su ko defee dina doon ngéneel ci béykat yi daanaka atum ren ji mbéy mi sooxe na lool gerte gi tolluwul noonu yéene kaabidi Sud Quotidien nguur gi mujjee naa fixé njégu kilogramme gerte gi te mu toll ci 305 francs ay dogal yu bëree bëri maanaam ay yu bëree bëri fas yéene koo gunge ngir mu mun a jàppandi maanaam amal campagne yu njaayum gerte gu mucc ayib yéenekaay bi ñu xibaar ne juróomi dërëm moo yokk ci njëgu kilogramme gerte gi gouvernement bi xamle ne dina jël matuwaay fexe ba industriel yeeg exportateur yi mun na soobu ci campagne gi ci anam yi génn yéenekaay bi di yor yor gi xëy di ñu fàttali ne atum 2023 jàpp 2024 tonu gerte gi mu ngi toll woon ci 280 000 francs atum ren ji nguur gi yokku na ci lu tolloog juróomi junni boo ko xaymaa campagne yu njaayum gerte atum 2024 jàpp 2025 tonne bi dina la dikkee 305 000 francs yéenekaay bi di yor yor gi ne fu mu toll ni béykat yi waxat mënatuñu dara réew mi quotidien ne gannaaw bu premier ministre Ousmane Sonko joxe xibaar bu neex ba ci traite gerte gi te ñu war cee soobu juróomi fan ceeru décembre gi ñu jëm te lu jëm ci njëgu kilogramme gerte gi nguur gi dina ko jënde ci 305 francs premier ministre Ousmane Sonko xamle ne nguur gi dina jël matuwaay ci frontières yi ngir mun a saytu bile campagne gerte ngir mu aw ci yoon yéena kaabi di réew mi quotidien dellu di ñu xamal ne bor bi état yoreloon ñi di opérateur semencier yi démb jot naa fab lu toll ci fanweeri milliards ak juróom jox leen yéena kaabi di le témoin xëy seede ne nguur gi jël na lu toll ci juróomi téeméeri junni junniy tonu gerte boo ko xaymaa ci koppar toll na ci fukki milliards ak ñaar ak yu toftal jëm ci opérateur yeek huilier yi yéena cabinet seeñaa sax daanaka francs moom la doon séentu ci njëg nguur gi indi ci 305 francs yéena cabinet turbine gis ne fu nguur gi natt tey njëgu kilogramme gerte gi munta feeñ ci béykat ndax ci nawet gu méttee métti ca la ñu jógee mbéyum gerte gi taxu ko demee noonu ba tax na dina jur njeexital ci campagne u gerte gi yéena cabinet a xëy di ñu xibaar ba fii Samuel Sarr jógeegul ci dossieram te mu soxal projet West African Energy yéen a cabinet projet ak la am ak cool koppar gàncey tudd tax tey yoon fas yéen a déglu ci Samuel Sarr gannaaw bu mu amee démb retour de parquet yéen a la mandat xëy di ñu fàttali ne gannaaw coowal mbalit gi fi jiboon fan yi te ñi moomee camion yi tondi mbalit ne woon ci grève bu te doon sàkku nguur gi leen bor ameel mu toll ci fukki milliards ak juróom dañ ko fay bu ñu sukkandikoo ci ndongo Fall yéen a caabidi 24 heures xëy di ñu xamleek autopont bu front de terre liggéey ba yemb na démb lañ ko doon ubbi ci teewaayu El Malick di jëwriñ ñu dénk wàllu transport dellu siwaat na ci googule projet xamle na nguur gi dugal na ci lu toll ci fukki milliards ak ñeent lañ ca jublu mooy fexe ba askan wi mun a dem ak dikk ci anam yi génn El Malick yemu ca dal dina soññu askan wi xamal leen ne bi de front de terre a caabidi ci université yi enquête gis na li xew ci wàllu paj mi ñi daay interne ak ancien interne te ci hôpitaux yi tàmbale nañoo ñaxtu jëm ci wàllu payoor ak statut bu dee waa SAES e di kuréelu syndicat gi boot jàngalekat yi ne ci daara yi sàkku nañ ci nguur gi ngir mu sàmmonteeg ay ne ñaxtu yi dem na sax ba ci liggéeykat yi ne ci collectivité locale yi ba tey ñu ngi ci seen grève bu ñaxtu yéen kaa bi di la quotidien ne mbir yaa ngi tàmbalee yëngu doore ko ci pañ meek njàng meek njàngale mi liggéeykat ya ca ne tàmbale fippu yéen kaa njortu ne weeru décembre gi ñu dugg mun naa doon weeru grève syndicat kaay boot liggéeykat yi sës nañu rëkk ndax seen boolu mu ñu kaay a waa Sénégal di nuyu waa diaspora Serigne Cheikh Sarr le marabout voyant moom laay woowee the king of the ki yàlla may xam-xam ci wàllum faj nee naa la foo teg sa loxo mi xasan bu fa bàyyi fii la lépp di leere borom seet bu leer bi Serigne Cheikh Sarr le guérisseur des maladies nee naa la hémorroïde ulcère prostate lépp ci gàncax ak ay reen cataracte glaucome ak bépp jàngoro bu nekk ci nit duñu bàyyi ndoxum siti bi sonal ñépp wóotal ci numéro bi gaaw ngir mu saafarawu 77 035 54 57 wala nga woote 77 736 76 21 Serigne Cheikh Sarr nekk fii ci diwaanu Daaru Cubb demal ki ko mën ak ki koy jéem du benn the king of the the king of the